asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jaama njiitu réewum Sénégal di Macky Sall daal dinay yokkaat état d'urgence bi ci diirub benn weer autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal nag ne sénégalais yu bëri la ñu yaakaaroon moom mooy ne Macky Sall daf koy daal di gàntal wante nag njiitu réew mi deful li ni mel autolikaay bi di Sud Quotidien ne Macky Sall kon dégluwul kàddu yi nga xam ne nag mën nga fësee ca syndicaliste yeeg ñi bokk ci biir société civile ndaxte ñu ci mel ni syndicaliste yi rawatina nag ñi xam ne de ñoom ñooy yëngatu ci wàllu dem dikk bi ñoom dañoo xamle woon daal ne doyoon nañu sëkk nag ci état d'urgence bi ndaxte seen liggéey dafa tagatembe te it su fekkente ne daal ñu matuwaay yi war ñoom de mun nañoo banque seen i yoxo toog ay diir yoo xam ne daal benn oto du daw fii ci même réew wante jolikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne nag kàddu yooyu nga xam ne moom moo fasee jóge nag ci ñi nga xam ne de ñoom ñooy yëngatu ci wàllu dem ak dikk bi am na yeneen kàddu yoo xam ne ñoom ñoo ko fi jiitu te it dafa mel ni ne askanu réewum Sénégal ñoom dañoo bëgg a defante nag ak ñi nga xam ne de ñoom ñoo leen jiite ci wàll gi ni mel sax professeur en sciences politiques euh, ci université Gaston Berger bi di Ibou Sané euh, moom daal di gis nag ne nguurub Sénégal warul dellu ginnaaw ci yenn ci ay décision yi nga xam ne nag daf koy faf di jël loolu sax moom moo tax ba mu gis ne su fekkente ne nag am na ñu koy jalgati faw ñu jël ay daan teg ko ci seen ndodd boobu nag fekk na ne naataangoom bii di Cheikh Atab Badji moom it nekk jàngalekat ci wàllu science politique gis ne li gën moom mooy waxtaan ak askan wi fexe ba daal di juboo ak ñoom ci kàddu urgence bi daal dinañu koy yokk ci diirub benn weer léegi nag li des moom mooy xool ba xam ndax couvre-feu bi it dinañu ko daal di yokk loolu moom ñëpp a ngi toog di xaar yan kàddu la ciy jëriñ ji di Aly Ngouille njaay fas ne euh, fësal li am ba des daal ci wàllu état d'urgence boobu Moustapha Diakhaté moom mooy xam xamle ci biir colikaay bii di Vox Populi ne Macky Sall dafa jalgati yoon nag ginnaaw ba mu ko daal di yokkee ndaxte fu mu nekk nii nag état d'urgence moom ñi di waa assemblée nationale ñoom ñoo ko war a mun a yokk wante suñu naataango yi nag di ñu xamal ne bi mooy moom la Macky Sall mën a def jëmale ko bi di voté dañu ko waxoon daal bi a moo tax ba enseignant en droit public bi di Ndiogou Sarr di xamle ci biir jolikaay bii di laas ne nag dootuñu mun a yokkuti lépp lu jublu ci wàllu état d'urgence bi ñu daal di jukki jëmale ko ci feebar bii di coronavirus ak tolluwaayam nag fii ci même réew ñu ngi ñuy xamal ci biir jolikaay bii di Vox Populi ne démba jëwriñ gu ñu dénk wàllu wér gi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ak professeur Moussa Seydi demoon nañu nemmeeku centre de traitement bu Diamniadio foofu nag professeur Moussa Seydi daal di ne xamle ni liggéey ba ñu fay amal ak tamit ci nekkin ñu ko fay amal nekk na nag lu mucc ay ayib wante nag bëgg na ñu daal di yokk nag plateau médical bu hôpital boobu maanaam ci côté réanimation wante jolikaay bii di Vox Populi ñoom it la njëkk a seetlu moom mooy ne dafa mel ni diggante jëwriñ gi di ak Moussa Seydi léegi daal dinañuy juboo autolikaay bii di libération di ñu xamal ne am na beneen doomu réewum Sénégal bu ñàkk bakkenam nag ci feebar bii di coronavirus léegi ñu ngi toll ci ñeent fukk ak ñaari nit yoo xam ne génn nañu àddina te feebar bii di Covid 19 moom moo leen yóbbu ñu desandi ak autolikaay bii di libération ndaxte mi ngi ñuy xamal ne importé yi ma ngay tàmbaliwaat nag fii ci mim réew te nag bi ci mujjee am moom moo loolee am na ay restrictions yoo xam ne dañu ko def jëmale ko ci wàllu frontières yi ak tamit ci wàllu dem ak dikk bi ci ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëgmal école fas yéene nag waat ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk classe d'examen jolikaay bii di critique ne fu mu nekk nii ñii di parents d'élèves nag ñu ngi ci njàqare bu tar ñi nga xam ne it ñoom ñooy jàngalekat yi ñoom it ñu ngi ci njàqare ñoom ñi nga xam ne nag ay jafe-jafe yu tar la ñu jànkonteel laata nag ñuy delluwaat ci seen bërëbu liggéeykaay ñoom ñooñu sax di nettali nag jafe-jafe yooyu ci biir jolikaay bii di 24 heures professeur wante ci biir colikaay bi di Le Soleil joriñ ku ñu denk wàllu jàngale bi di Mamadou Talla di xamle ne lépp yemb na ngir ñu daal di amalaat ubbite l'école yi ci anam yu jaar yoon ci biir colikaay bi di Les Échos CRD di kuréel bi nga xam ne nag moom moo ëmb ay yu mel ni Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo ñoom de fu mu nekk nii la ñu bëgg moom mooy contrat am ci diggante Senelec ak Akilee ñu daal di koy jël teg ko fële yemuñu foofu ndaxte colikaay bi di Les ngi ñuy xamal ne waa CRD ñoom nee nag képp koo xam ne tey jii da nga dugal sa loxo ci wàllu contrat boobu nañu la jël daal di teg ay daan ci sa ndodd wàllu ñu koy jeexalee ak culikaay bii jox na kaddu Lac de Guiers numéro moom nag ma nga fële nga xam ne moom mooy ca états wante li nga xam ne la moom moo xew ci CNG yitteel na ko torop te it la mu gis moom mooy ne Matar Ba dafa war a tas tasar nag li nga xam ne moom mooy CNG bi ndaxte amul benn njëriñ nekkulu fi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu lamb wante moom la mu gëm moom mooy daal ne li ni mel nag laatu muy am faw nag xaritoo bi am am ci diggante Mactar Ba ak Aliou bi di CNG lii bu tilukat yi li gën a Mesdames et messieurs, bonjour. L'état d'urgence encore prolongé pour 30 jours. Et pourtant, après deux mois de semi-confinement ponctué de légers assouplissements des restrictions et compte tenu du déconfinement qui se généralisait dans le monde, beaucoup de Sénégalais espéraient que la date du juin prochain allait consacrer la la fin de l'état d'urgence, surtout euh, ceux que la décision de suspendre subitement les liaisons terrestres maritimes entre les régions était surpris et qui étaient loin de leur résidence pour diverses raisons. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, la prorogation de l'état d'urgence intervient à un moment où l'économie nationale est au bord de l'asphyxie. L'hôtellerie, les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviales, les petits commerces, la restauration frappés euh, par les restrictions liées à la lutte contre la covid qui ne cesse de gagner du terrain et de faire des victimes. Et cette morosité économique a fait que des syndicats de transport se sont montrés plus ou moins défiants de l'autorité en voulant décréter une reprise forcée du trafic interurbain. D'autres menacent même de décréter une grève générale très prochainement pour un Sénégal sans transport. Et il faut dire que ces actes de défiance ne concernent pas de l'autorité de l'État et ou la déliquescence de son pouvoir coercitif face aux contestations multiples notées ça et là n'est plus approuvée. Et si le professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Iboussane, préconise un État fort dans ce pays difficile à gouverner avec des sanctions pécuniaires, son collègue MBA en sciences politiques, Cher Atap Badji, euh, trouve qu'on est dans une situation de délire communautaire et il opte pour communication communautaire. Après été euh, prorogée. Tous les Sénégalais sont maintenant à l'écoute de Aly Il devra dire si la prorogation de l'état d'urgence restera toujours assortie euh, d'un couvre-feu ou non. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal par rapport à la prorogation de l'état d'urgence, l'ancien ministre conseiller de Macky Sall, Moustapha Diakhaté, n'est pas en phase avec lui par rapport à cette décision. Il l'a fait savoir sur sa page Facebook en brûlant le président coup d'État contre l'Assemblée nationale. Selon Moustapha Diakhaté, Macky Sall a violé la Constitution du Sénégal. Car selon lui, en vertu de l'article 69 alinéa 2 de la Constitution du Sénégal, le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après 12 jours à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République, n'en ait autorisé la prorogation. Cependant, dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent que cette 69 de la Constitution, car c'est l'Assemblée nationale qui a autorisé le président de la République à proroger l'état d'urgence pour une durée de trois mois. Donc, retenons d'ailleurs avec Ndiogou Sarr, enseignant en droit euh, public, qu'il n'y aura plus de possibilité de prorogation à la fin de cette prochaine séquence. Le ministre de la Santé et le professeur Moussa Seydi ont visité hier le centre de traitement de Diamniadio. Et déjà, nos confrères de Vox Populi la paix des braves a été deux autorités sanitaires et donc l'heure semble être à la décrispation après plus d'un mois d'une cohabitation tendue. Et lors de cette visite, le professeur Moussa Seydi a fait savoir que le plateau de Diamniadio soit relevé le maximum possible, surtout en matière de réanimation. Le professeur Moussa Seydi veut que l'on prenne les devants car si le nombre de cas augmente, cela veut dire que le nombre de cas graves va aussi augmenter. Et signalons par a enregistré décès lié au coronavirus. Le patient âgé de 80 ans est décédé hier. Nos confrères du journal Libération sont aussi préoccupés par les cas importés qui refont aux surfaces et nos confrères nous indiquent l'un des cas importés positifs au coronavirus annoncé hier par le ministère de la Santé a été détecté dans le district de Dakar Sud. Le patient revient de la Gambie malgré toutes les restrictions au niveau des frontières et des transports. Réouverture public trouve que c'est un véritable cas de conscience pour tous les parents d'élèves, car sans le vouloir, les potaches et leurs enseignants iront à l'échafaud euh, face à un ennemi invisible. Également dans le journal 24 heures, ce sont les enseignants qui racontent leur carnet de voyage, eux qui ont donc passé 10 heures de voyage, de souffrance, de bousculade, de non-respect de la distanciation sociale euh, pour retourner à leur lieu de travail. Cependant, le ministre de nationale, Mamadou Tala, tient à rassurer euh, tout le monde et déclare que tout est fin prêt concernant donc la reprise des cours mardi prochain euh, pour les classes d'examen. Le ministre Mamadou Tala d'ajouter que le ministère s'adaptera à toute nouvelle évolution de la situation. Parlons à présent du contrat entre Sénélec et Aquilé. Le CRD parle de contrat corrompu et exige l'arrêt de l'exécution du contrat et réclame des poursuites contre les dirigeants de Sénélec le journal Les Échos et nos confrères d'ajouter que le CRD demande l'arrêt immédiat de l'exécution du contrat. Terminons par le sport en foot. Nos confrères du quotidien du sport Stade se rappellent qu'il y a 18 ans, le Sénégal terrassait la France en match d'ouverture du mondial 2002. Ce jour-là, 11 lions affamés ont contenu et surpris les champions du monde et d'Europe Un joueur y a laissé à jamais son empreinte. Il s'agit de Pape Bouba Diop, le géant milieu de terrain sénégalais, auteur de l'unique but de la partie et qui est à jamais le premier buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.